eh lamb ji lamb pànk la kenn du may da lu waay may sa morom mu jël ko fëgg la Fils de Lirou xam naa loo ci mën a xam ba xam ko ci mooy lamb ji dina am xeex dina am jóob am joxal jóob andil njaay ni ko lebuy di waxee tey dañuy jóoy yooyu yëpp tey dina am ci bés bi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Feugeula bu Ngor Afisa Lirou Jax Production le 26 mars samedi il est 19h34 dox nañ ba ci côté saako yi ñu bëre ñoom ñaar <laughs> lamb ngi noonu doorante nañu eh Fils Lirou Feugueleu Fils de Lirou daw na jëli ko xeex nañu ñoo koy xeex xeex nañu Fils de Lirou Feugeuleu Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu dafa bëgg a xeex ak moom moo lay dóor waaw waaw Fils de Lirou Feugeuleu dóor fay la dóor fay dañuy xeex dañuy xeex Fils de Lirou Feugeuleu waaw waaw waaw xale yaa ngi noonu eh, Fils de Lirou ñu mën ginnaaw ngeen moo ngeen lu ñuul teg ci lu zone li Feugeuleu bu Ngor mu ngay année lu mu nar fàq na ko Fils de Lirou fàq na raam na jugaat Fils de Lirou caxabal na ko waaye caxabal ba daa <laughs> lu mu koy def génn na waaw waaw <laughs> yaay xale yaa ngi noonu Fils de Lirou bu Ngor eh, kontaan naa man damaa bëgg lii damaa bëgg ba bi sifflé ñu xeex bëre jëflante ku ci nekk wane li nga liggéey arbitre bi siflewaat na Fils de Lirou Feugeleu ñoo ngay lewaatoo Fils de Lirou Feugeleu Fils de Lirou Feugeleu <laughs> Feugeleu Fils de Lirou mbokk yi Feugeleu bu ngor la Fils de Lirou doomu Lirou la ñoo ngay demee wet Fils de Lirou teg na pied gauche Pogolo Bongo pat pied droite mbokk yi tey journée Jax Pogolo dafa bëgg a xeex ak waaye Fils de Lirou dafa bëgg a dem Fils de Lirou Pogolo Fils de Lirou Pogolo Bongo Pogolo ngay tekki téere dóor of ca ngemb la bëggul dara bëggul dara zone ko door na léegi moom Feugeleu bu Ngor Fils de Lirou dafa bëgga a dem añ na ko takk na ca ngemb la Feugeleu Fils de Lirou Fils de Lirou jàppul na ko moo takk na ko da koo bëgg a xaar Feugeleu da koo bëgg a xaar Fils de Lirou waaw boo dugalee waaw gis nga làmb gi noonu xale dañuy bëre da ko na ko dàq na ko door na ko eh, Fils de Lirou baa ko doomu daanu <laughs> waaye waaw waay waay laaf ma ngi noonu fi sa liw xale yaa ngay bëre fëgal la fils de liru fàq na ko fàq na ko mais mais mais mais la de moo koy fàq moo koy gësam moo koy fàq laay waay waay bëgg naa lii xale ba la muy bëre estat baa nga yuuxu fils de liru laay fàq na ko da koy génn dàq ko plaqué mu bañ. waay waay waay waay lu leen fay jar na ko xale yaa ngay lu leen fay ko jar na ko jooyatuñu grand ko suba dugg ci digg géew ba nee na da koy defaral ko bàyyi ko mu bëree. <laughs> Fils de Lirou Feugeula oh kontaan man damaa bëgg ay xale yu jëflante. waa ñëw rek jàppante. door na léegi. Fils de Lirou da koo jàpp. Fils de Lirou fëggale bu door na ko léegi coup dal. Fils de Lirou door na ko léegi coup bu dal Fils de Lirou Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu loxo yi daa commencé saafé oh xale yi jëflante nañ léegi combat bu neex bëre nañu xeex nañu Fils de Lirou yaa ngi ci wetu saako yi ñoo ngi demante baayam door na ko doo ko door ku yow bu du baax ñoo ngay xeex ñoo xeex waaw waaw non la ñu waxante woon def nañ ko ñaari xale yi la ñu waxante ngi koy def Fils de Lirou Feugeula bu Ngor Fils de boo xoolee waa Ngor ñoo ngi ne teg boo xoolee waa Cambérène ak waa Guédiawaye ñoo ngi ne teg Fils ak yooyu ci kaw saako yi. Fils de Lirou Feugeula Feugeula Feugeula wàcc na léegi bëtt ko Fils de Lirou yi ay mbërantaan lañu dañuy bëree. waaw waaw xam nga ne xale yi ñoo fay xaalis ñu loo leen fay doo ko rëcc. Eh, Feugeula looy def nii lu muy def Feugeuleu lu muy def nii Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu Fils de Lirou ñaari xale yaa ngi bëre Feugeuleu Fils de Lirou Feugeleu Fils de Lirou coono commencé naa dugg jàppante nañu ku ci nekk ngay noyyi ku ci nekk yaa ngi noppalu waale <laughs> bu ñamantee xam ku ci nekk sa xale yi xeex nañu bëre nañu jaayante nañu doole puusante nañu léegi ña nga noppalu <laughs> munu cee ñàkk Fils de Lirou caxabal na ko léegi waaye caxabal bi daa sori Fils de caxabal na ko léegi Fils de Lirou fagala fàq na ko fàq na ko Feugeuleu Fils de Lirou bul forcé Fils de Lirou làmb duñ ko forcé ma ngay dóor Fils de Lirou fa Feugeuleu taxawoon Feugeuleu Fils de Lirou taxaw léegi Fils de Lirou Feugeuleu Fils de Lirou Feugeuleu Feugueleu la dooroon léegi eh Feugueleu a ngay door ku yu baax Feugueleu a ngay door caxabal na ko rof na ko caxabal ba da koy daan Fils de Lirou daan na Feugueleu Fils de Lirou eh, eh, eh. Jeex na. Li may gon. Li may gon. ñu may gaañ yaa may gaañ yaa may gaañ